إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mi yeyoo cant di ko dimbali ko di ko ñaanu jéggal ñu suñuy bàkkaar moom miy jéggale bàkkaar yi di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc di ko ñaan it mu jubal ñu moom mi nga xamante ni képp ku mu teg ci siraatal mustaqim mucc nga waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga maan ba nga réer kooku amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla ñu yàlla jubal ñuy seede ne amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne sangu suñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ba ba keroog borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla mbokk yi muy yóbbalu jaam bi fu mu mën a nekk ci kaw suuf yàlla du ñu ko dénk ne nañ ko ragal dëgg-dëgg ragal rikk nag bu ñu dellu ci moom lu mooy dañ ko jébbal suñu jëm yi suñu xubbee tey mbokk yi dañ koy sof ci suñu xubba bi weesu doon wax ci wàllum yar wàllum saytu njaboot gi rawatina ci jamono ji nga xamante ni ci la ñu nekk muy jamono yu bër muy jamono yu vacances yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi wax ak ñun ci alquranul karim moo ñuy nettali benn waaye joo xamante ni ku amoon xikma la muy sagesse ku amoon tamit éloquence mën a wax ak nit ki ba mu dégg la nga koy wax te doo ko vexé ku mënoon a wax ak génération bu mu mën a doon yàlla jël xikma bi nekkoon ci moom ak xéewal yi ñu wax lépp jël waa jooju di waliyullahi luqmaan dal di indi turam ci biir alquranul karim bal wa anzala suuratan kaamilatan bismi suurati luqmaan yàlla suñu borom wàccee saarut lëmm di ci nettali histoire waa jooju noonu ñuy wax luqmaanul hakim luqmaan dafa ñëwoon di waxoon ak doom ji yàlla suñu borom bi ñu ko nettali mu ne wa laqad aatayna luqmaana alxikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna allaha ganiyun xamid yàlla suñu borom nee na moo joxoon waa jooj ñuy wax luqmaan lii di sagesse ànd ak loolu lépp nag yàlla mi joxe xéewal ngir bañ bu la joxee xéewal nga naagu beew mu ne ko nang ma delloo cant gi man yàlla te nga xam ne nag cant gi nga may sant taxul sama nguur gi yokku dara wàññiwul ci sama nguur gi dara bal yow lay jariñ ndax la in shakartum la azidannakum yàlla na ne boo santee ma dolli la ci xéewal ma la defal waaye yàlla ne ko wa man kafara fa inna allaha ganiyun xamid képp ku ma weddi nag bañ maa sant ci xéewal bi ma la defal jàppal ni yàlla moom ku woomal la ku mànkewul dara luqmaanul xakim dafa toogoon ak doom ji di ko waar lim ko njëkk a dénk mooy alquraan ay wax wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaidu mu ni luqumaan de toogoon na ak doom ji di ko waar li mu ko jëkk ma wax mooy yaa bu nay yow doom booy nga xool maanaam nam ko woowee rek nam ko woowee bu doon sa doom boo jur tey mu dee bu jigéen nga tuddee ko sa yaay nga ne ko wala nga tuddee ko sa sa baay nga ne ko yaayu baayam kaay ma waxtaan ak yow maanaam woo bi nga koy woo rek dafay neex ci xolam te waxagoo ko li nga koy doyee loolu la bu loolu la luqumaan jiital ci doom bi yaa bu nay yow doom booy li ma lay njëkk a dénk mooy laa tushrik billah inna shirka la zulmun adim bul jaawale mukk cëru yàlla ak cëru mbindeef bul bokkaale ak yàlla mooy bul jaawale cëru yàlla li yàlla moom nga koy jox mbindeef booy ñaan ñaanal yàlla yàlla mooy kii maye mooy kii xañe yuhyi wa yumiit mooy kii dundal mooy kii faat cër yooyu yëpp yàlla moo ko moom mu ne ko bul jaawale cëru yàlla ak cëru mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musal nañ ko laaj ayu danbin aadamu inda allah ana ban bakkaar mooy bi gën a rëy ci borom bi subhanahu wa taala qaala mu wax ni an tajcala illahi nidda wa huwa xalaqak mu ne mooy nga jël borom bi subhanahu wa taala utal ko ndend te fekk ni moom borom bi subhanahu wa taala mooy ki la sàkk kon mooy bakkaar bi gën a rëy kon li mu njëkk a dénk doom ji mooy tawxiid mu bàyyi xel boromum subhanahu wa taala te bañ kaa bokkaale kenn ginnaaw gi lim ko ci tegal mooy wa wassayna al insana bi walidayhi xamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaaluhu fi aamayn an ishkur lii wa li walidayka wa ilaya almasir ni ko ginnaaw nag boo bañee jaawale cëru yàlla ak cëru mbindeef li ma la ciy tegal mooy nga bàyyi xel say wayjur rawatina nag sa yaay ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax ci benn xadis xadis abi hurayra radiallahu taala anhu mu ni benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man ahaqu nnaasi bi xusni saxa bi xusni saxaabati sama ñaari wayjur ñi nga xamante ni topp leen wareef la ci man waaye ñoom ñaar ana kan laa ci war a gën a topp topp ñaari wayjur yi wareef la waaye ñoom ñaar ana kan laa ci war a gën a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ummuka sa yaay waa ji waxaat ko ni ko ak kan mu ne ko ak sa yaay mu ne ko waat ak kan mu ne ko ak sa yaay ba mu ñetti yoon mu ne ko ak kan ci ñeenteel yoon bi mu ne ko ak sa baay ak sa yaay bu njëkk bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day fàttali xale bi loo xamante ni coono bi yaayam dañoon ci moom te fekkewu ko mooy wax ko yaayam ëmbee ci biir coono googu doom ji yëgu ko yaay ji moo ko doon yëg moo ko doon dund loolu la ko fàttali ko del bàyyi xel sa yaay ci coono goo xamante ni umpoon na la beneen ummuka mooy ba mu lay wasin sa wayjur ba mu lay wasin bari waane ñoo xamante ni ci jamono yii yal na yàlla yërëm leen am nañ gone ci hôpital dara dalu leen ñu mucc ci jàmm ba foto sax seen leer gi ñu indaale mooy liir bi yabal ko wayjur ni ko xoolal ki ma la indil nim la niroo macha allah pare ca wax ja rek commencé sañe laata docteur yi di egg ci moom faatu ko coono googu est ce que doom ji yégoon na ko déedéet mbokk yi moo tax yoon saa sam ni ko ummak sa yaay da ko bàyyi xel ci coono googu nga xamante ni ba mu lay wasin bakkanam xajoon na ca beneen ummuka bi mooy sa yaay ba mu lay nampal daana la nampal ba ween wi dagg te teewul boo xiifaatee mu saxal la ween bi bi nga mattoon bi nga mattoon ba dagg ko coono googu mu ne yëgoo ko woon sa yaay moo ko doon yëg moo tax bàyyi waale sa sa yaay muy ñetti ummuk abuuka bi mu ko wax nag mooy sa baay moom jarul ma lay fàttali coonoom ndax ci la dëkk saay bu xëyee xëy na fajar bu ñëwaatee guddi la bu xëyaatee fajar bu ñëwaatee guddi la kooku coonam jarul ma la koy fàttali ndax jàng ciy teg sa bët saa su nekk kon loolu yoon la yoon san salam jàngale te luqmaan loolu la dénkoon doom ji ginnaaw bi mu ko dénkee mu bàyyi xel boroomam subhanahu wa taala luqmaan yamu ci mu delluwaat di wax ak doom ji mu ne ko wattabi sabila man anaaba ilay summa in ilaya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun mu ne ko yow doom booy na nga xool ki ngay roy suñu jamono yi tey bari na suñu njaboot gu sànku li leen sànk mooy idol te idol yi fees dell dell dell nag ci jamono ñii ay footballeur lañ ñii ay basketteur ñii ay rappeur ñii ay musicien ñii di xeet bu nekk ba ci ay mbër suñu jaboot gi def leen ñoom ay idol di watu seeni façon watin di dox sax seen façon doxin di solo seen façon façon yi colkin ba tax na nga xool sa doom mënatoo ko xàmmee nakate boobu jël na idolam bu yàgg moo tax luqumaan bi muy dénk doom ji daf ne ko na nga fexe ut idol waaye idol kan man anaabe ilayya koo xamante ne da lay digal lekk lu jëm ci yàlla jàkka ja say wayjur bàyyi xel nit ñi lépp loo xamante ne lu lay delloo sa borom subhanahu wa taala booy ut idol na nga ut idol ci ñooñu nga xamante ni ñoo lay delloo ci sa borom subhanahu wa taala aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقي جنا بني سنتي برم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمل ñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla lul wàcceewaat beneen yonent ginnaawam yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njuubam baba yàlla suñu boroom di doon suufam si mbokk yi luqmaanul hakim mu ngi wéy di dénk doom ji alquran mooy wax ak ñun ba tey mu ni yaa bunay yow doom booy in takum misqaala habbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir yow doom booy day bàyyi xel sa boroom ci fépp foo mën a nekk ci kaw suuf te xam ne lépp looy def yàlla moom ku dañ kumpale ci lépp looy def bul yàkkam si mukk sa wërsëg nag ba mu tax nga ne damay jël gaaga dem mbokk yi gis nga sa wërsëg foo nekk ci kaw suuf dina la fa fekk léeg-léeg nga gis ko tukki dem ba États-Unis wala Chine wala ci buldaan yooyu nga xamante ni boo ko tuddee léegi nga ne sama doom de mu ngi ci dëkk sàngam tiitar lay nekk ci yow fekk wërsëgam moo fa ne wërsëgam moom la jëli ji gis nga wërsëgam bu jeexee mbokk yi wallahi ndox boo ko joxee du jàll ak fu mu mën a nekk nag ci kaw suuf ndox rek boo ko joxoon ndox mi du jàll day génnaat ndaxte wërsëgam moo jeex mu ne ko bul yàkkam ci mukk sa wërsëg bul jaay mukk lu ñu lu ñuy tere moo xam dorog la wala ngay taxawaale bu dee jigéen la ngir mooy yoon bi gën a gaaw pour nga am wërsëg déedéet sa wërsëg yàlla dakaa wàccaaleeg yow dénk ko sax sa waajur dénk ko mbindee kon nekkal ci fi nga war a nekk rek dina la dab même boo doon tenk dina la dab luqumaan weyaat ba tey di dénk doom ji mu ne ko yaa bunay aqimi sola subhanallah nee na ko doom booy ngir yii ma lay digal nga mën cee tege te doo derafe del taxawal julli mbokk yi aj benn yoon la ko yàlla farataal ci sa dund koor benn yoon ci weer wi ci at mi at mi benn weer la ci yàlla sàkk muy farata ci yow beneen boo def sunna la azaka moom da nga koy am nisaab pour mën koo génnee wa illaa yow dañ koy génne di la ko jox waaye julli juróomi yoon la ko yàlla farataal ci yow ci bis bi ngir nga mën a am connexion ak sa borom direct chaque jour moo tax loolu ko njëkk a digal del am connexion boo bëggee am réseau del connecté ak sa borom direct chaque jour cinq fois ci journée bi aqimi solo wa'mur bil ma'ruf wa anha anil munkar ndax julli googu mu ko digal inna salata tanha anil fahsha wal munkar soo amee connexion sa borom rek yàlla dalay jombale lu lu ne lépp loo xam ne lu baaxul yàlla la koy jombale da nga koy seexlu boo déggee ñu naan la julli dafay seexlu mooy boo amee connexion sa borom da ngay seexlu di def lépp loo xam ne ñaawteef la bu ko defee nag li ngay wax lépp al maaruf lay nekk looy wax yiw lay nekk digle lu baax day digle lu baax yow doom booy wan haanil munkar foo gisee loo xamante ne lu ñu sib la lu baaxul la na nga ko moytu bu ko jegee na nga ko daw wasbir ala ma asaabak mu ne ko nag gis nga àdduna boo ci nekkee doom booy da nga yaatu dënn xajoo lépp nekk muñ kat muñ amul ab mbokk yi te ku ñuy wax muñal lekk neexul te yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa bind àdduna bii wàcce ñu fi fii kabat ngir ñam coono liggéey loo xamante ni ëllëg mooy li ñuy jëriñ yàlla ñu yàlla dugal biir aljanna moo nekk suñu fay luqmaan jeexalagul ak doom ji mu ne inna dalika min azmi l umuur muñ googu moom moom la yonent yi sax moom la leen yàlla daan dénk wasbir li xukmi rabbik inna alladina amanu wa amilu salihat inna alladina amanu walladina sabiru wa sabiru saa su nekk muy ñi gëm yàlla wala yu yéeg képp ku teg tege fi yàlla wax ni nga tege fa li la yàlla dénk comme arme moom mooy muñ mu ne ko nag yow doom booy wala tusair xaddaka linnaas fexeel ba bu la yàlla defalee teraanga ci kaw suuf nee na nit ñi bu ñu gis sa lex ku ñu gis sa lex rek mooy da nga fénétal nit ki waaye nit ku ñëw na nga ko fexee accueillir wax ak moom bañ a wane sa daraja bu dee da nga am daraja war nga wane sa sa garaat te xam ne lépp loo am rek bi ngay ñëw indaale woo ko dala fee dab kon bu ko wane bul fenetal nit ñi wala tamshi fil ardi marha yow doom booy booy dox ci kaw suuf nee na bul dox doxu yambar ba ku la gis xam ne kii ab yambar la buy dox bu dee jigéen la nag sag dox na teey wala tabarruj na tabarruj al jaahiliya bul baraj baraj comme jaahili ñu nañ baraj barajee takk loo xamante ni sax da ngay dox di baraj baraj ngir nit ñi xam ni am na loo takk ba muy yëngal góor ñi nga xamante ni seen xol dafa feebar bu dee góor nag mu ne ko bul dox doxu yambar waaye bul xaabar xaabari ba mel ni xaabar ndax munoo dox di funki funkilu ba fees suuf munoo doxit di ngande ngandelu ba sut montagne kon na nga dox doxu jaamu yàlla mbindeef bu ñuy wax jaamu yàlla wa ibadu rahmani alladina yamshuuna ala al ardi hawna booy dox ci kaw suuf na nga dox dox gu tey dox gu dal loolu la luqmaan dénkaat doom ji kon mbokk yi su ngeen déggee dénkaanu luqmaan yàlla suñu boroom indi ko ci alquranul karim nettali ko ba mu jeex takk mooy ni kenn ku nekk di kilifa ci ñun war nga jël dénkaani gi di ko dénk sa borom ngir xam masuuliya responsabilité bi dox sa diggante ak sa jabar ëllëg yàlla la koy laaj waqifuhum innahum masuluun yàlla nee na ëllëg boo sàgganee sa njaboot gii da ngay nga daan julli daan woor aji màkka lépp nga def ko daan joxe lu ne nga daan def ci lu baax sàggane woon sa njaboot bu nu la peesalee say jëf ba nga nar a dem kenn sa njaboot moo naan kee de mënul dem yow yàlla mooy suñu way jur ndax teguñu woon ci yoon bi nga xamante ne tey boo ko jëmee fee ne mu war a dem yàlla ni waqifuhum innahum mas'ulun nañ ko taxawal kooku war nañ ko audité ngir àq bi nga xam te ne moo dox sa diggante ak sa njaboot fa iza jaa'ati saaxxa baat yii di tiir yowmal qiyaamati yépp dafa metti tudd sax fa iza jaa'ati taamma yépp a metti tudd ngir la fay am day metti yàlla di wax nag ni yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi lu tax li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni doom bu gisee way juram ak ni mu neexee bi ci kaw tuur boo wàccee mu daw raxasu la ëllëg yawmal qiyaam yàlla nee na bu la gisee day daw yowet ngay daw bu jëm penku nga jëm sow ndax kenn ku ci nekk jàpp na ni yiw di nga xamante ni ëllëg mooy allah alalu alaxira ku ne moom ngay wër sa morom te sa waay jur mën naa am ci yow àq boo ko gisee da ngay daw moom it mën nga am ci moom àq ku gis sa morom di daw moo tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ñu nettali histoire yi ngir mooy jur bu nekk bi ñu bàyyi xel sa digganteeg sa njaboot ëllëg mu mën a wàccoog yow yàlla boole ñu ñëpp dugal ñu biir aljanna yàlla ñu koy defal yàlla waxu ne nag sa njaboot gii faw li ngay wax nii dañ koy def par force ñun ñëpp war a jub déedéet loolu yàlla yonent bi saa saam la ko njëkk a joxoñ ni ko lasta alayhim bi musaytir yow moom balliq rek jottali li ma la wax ni nga tali jottali ko comme nii ñuy def nii walakin lasta alayhim bi musaytir bu leen bu leen jël nag not leen islam pur et dur déedéet innaka la tahdi man ahbabta yàlla ni ko nekkul yaay jubal ku la neex de yàlla mooy al muqallibal qulub mooy kii wëlbati xol yi da ngay gis nit mu doon ko sàggan balaa ay xanam di jeex yàlla jubbanti ko mu nekk koo xamante ni nitu yàlla la nga gis ku nekkoon nitu yàlla di wax ci yàlla balaa ay fanam di jeex boo ko gisee da ko xàmmee ndax sofaan bi mu jël yàlla mooy kii wëlbati xol yi yàlla yàlla wëlbati suñuy xol wëlbati suñuy xol yu njaboot tàggat leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله